waaw nekk lu doy waar nag loo xam ne bon loo xam euh, lu waral ñu def ko mais nee nañ parce que dañ ko yàqoon te foog naa ne mais bu ñu nee dañ ko yàq presque léegi mu mat 4 mois ñu togg di xaar te te ñu jëm ci ay élections yoo xam ne fii ak ay 3 mois dañu nekk ci ay élections donc mu doon waroon nekk loo xam ne tey jii ne waroon nañoo fekk consulat bi tijj bu yàgg ba ñuy jël suñu carte ku nekk daa sa carte di xaar bu dee ne dëkk boo xam ne démocratie la. dafa tegu ci yoon te ñiy jiite moom la ñuy teg lépp ci yoon donc waruñu woon sax di wax naan consulat bi dina tëj ak du tëji ndax yàq bi li ñu fa yàq bu dee ne looloo tax ñu tëj ko loolu nekkul lu lu lu lu affecté maanaam fi ñuy defee kàddante yi donc heure bi war na fekk ñu tëj ko bu yàgg mais nag bon lu waay def sa bopp nga ko def daal. waaw mais mënuñu ko bañ a condamné parce que bari na lu mu yàq mais balaa may condamné waa consulat bi ci boppam damay condamné ñi nga xam ni ñoo utiliser. et ñoo hypnotiser ñoo fanatisé jeunesse bi traumatiser leen ba ñuy def acte vandalisme yi nga xam ni conséquence bi après ci ñoom lay répercuté wu. parce que boo xoolee affaire bi bi muy am dafa tombe xale yi dugg ci réew mi taxaw gi war suñu diggante ak ñoom sax amul ba pare ñu dugal leen ci yeneen yoo xam ni mënoon naa gën a garaaw mais bu jee ci kaawu consulat bi euh, euh, xale yi politique moo leen jàpp ba ñu dugg def loo xam ni sinti ni xamuñu ko léegi nag tey tëje na boobaak léegi. ñoom bi ñu koy def dañ ko def parce que dafa am ñu ñu contre jàpp ni ñoom ñoom ñoo yilif lii ñu ñëw pour bëgg a yàq léegi nag ñi ñu contrôle ñoom bëgg a profité ñoom it ci yàq googu noonu déjà am na ñu ciy jàppalu économiquement impacté na consulat bi ñi nga xam ni ñoo dugg ci réew mi tamit soxla ay këyit war koo amee ci consulat bi lu mel ne ay passeport ay carte consulaire ak dépôt carte d'identité sax ak ay carte électeur yu ne mel mënuñu koo am. ñoom it ñu bëgg a profité bëgg a prolongé fermeture u consulat bi peut-être comme échéance yi jub si na te xam nañ ñu fii peut-être ñoom ñooy gouverner te baaxlewuñu fi est-ce que dañoo bëgg a profité ci occasion bi tamit pour tëjaale consulat bi su ko defee vote du am fii rek est-ce que du loolu lay lay loolu lay nuru daal en tout cas lu ci mënti xew ñaawlu naa ñaar yëpp daal. bon képp kuy sénégalais loolu war nga ko méttitlu surtout ñi nga xam ne ñoo nekk fii di doon ay sénégalais si Amérique. parce que lépp lu ñuy lijjanti muy passeport muy document administratif bu ñu soxla c'est au niveau de l'ambassade lañ ko war a lijjantee donc loolu la fekk ñu tëj ko ñun ñu nekk fii résid ah, ñun ñu nekk fii dëkk Sénégal nekk fii Amérique ñun lay gën a ñun la gën a andil ay difficultés loolu bon impact yi mun a andi ak conséquence yi mun a andi bon suñ côté la rek ba tey quoi parce que bépp problème bu ñu am fii rek fu ñu ko mun a jooyloo gisuñu yaay gisuñu papa foofu lañ ko war a mun a jooyloo léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy suñu kilifa yi lu ñu tëjee kër gi ne kenn du dugg boobaa dina metti si ñun quoi. waaw loolu yëpp gars yi ngi wax rek ay dill la pour gars yi bañ a voté fii pour président Macky saal jéem a xaw ma nu ñu koy waxee noonu ma yooyu du ma si jaar mais yooyu yëpp seen une possibilité. parce que lii ñu def même bon duñ doon suspendre mën nañ ko def benn deux jours trois jours wala benn euh, euh, supposons benn week ñu tijjiwaat ambassade bi mais depuis ça fait presque un mois je ne sais pas ça va atteindre les deux mois ñu tëj ambassade c'est pas normal. loolu du du dëgg du yoon ak lépp lu ñuy lu ñuy mébét tamit pour def ko na nañ ko def si condition yu mu gën a naayisee ko waa lool la man de loolu laa ko jàppee tax ñëpp sax mën nañu ko jàppee ndax loolu la mën a doon ndax boo gisee ñuy def Sénégal nga xam ne sabotage xam ne yow boo doon jox nit ay ay ay de parrainage am ba léegi joxuñu ko te juge yëpp nangu nañ juge bi nangu na euh, Sénat wax na ba léegi ñu bañ kon réew moom euh, droit amu fa la ma fa am jaay doole yaakaar naa tamit dañuy jéem a jaayaat doole fii mais fii tamit moom li ñuy wax ne euh, nu tudd euh, diaspora du Sénégal donc lu ñu ci mën dinañ ko jéem a def pour fexe ñu jot suñuy carte ñu war a jot seen carte jot seen carte ñu war a voté ci voté ci ci jàmm duñ nangu ku téye suñu carte wala ku bañ a tëj consulat wala non yéex parce que affaire yi mënoon na gën a gaaw très concrètement li am traumatisme la boo xam ne dalandoo na ci kaw Sénégal xale yi def nañu lu ñu warul def ñëpp ñaawlu nañ ko mais pragmatisme waroon na mën a am ouverture consulat bi waroon a jël benn certaine lenteur ci réew mu mel ni Amérique. xam nga au delà de affaire adversité politique mais nit ñi ay citoyen lañu am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci politique sénégalais citoyen lambda bi nga xam ni moom dafa bëgg kayitam ak ñi nga xam ne ñu ngi ci état yi daan jógee fu ne di ñëw New York di dem ci consulat bi pour am seen i kayit normalement wuruñu woon laqatu daal ci politique xam nga politique nag dafa yàq suñu réew réew mi léegi mënatoo xam kan moo bëgg Sénégal rek nekk citoyen lambda il faut nga bokk ci ñu baax wala nga bokk ci bon ñii jàpp ni ñële ñoo baax ñii jàpp ni ñii ñoo bon et kenn ku ci jekk sa morom bëgg ko wan su ko defee lépp stagné loolu du yoon ñun ñooy payer le pot cassé te ñun suñu yoon newu ci. bon saccage bi man mun naa wax ni lool des fois mënul ñàkk mënul ñàkk parce que euh, defe naa suñ déw nu ko saccagé noonu ñu bàyyi feneen ñun ñii nekk fii Amérique feeñ lañ lañ mun a saccagé mu ñoo dem beneen ambassade na dañ koy saccagé. wala ñu génn si réew mi naan dañ koy saccagé léegi pour wane suñu mer-mer seul fu ñu mën a sa saccagé mooy suñu territoire te ambassade boobu du ñu fa xasee ba teg suñu tànk nekkatuñu Amérique ñi ngi Sénégal donc foofu lañ mën a wane suñu mer certes euh, naqaru nañ li fa amoon saccage saccagé bi fa am naqaru nañ ko mais instant yi fi fu kii yi toll euh, fu mer-mer yi toll ak suñu xadar rek yi ñu fa duggee woon ak yooyu Sénégal gis nañ ñun ñëpp ni ñu ko saccagé te foofu moo gën a seer consulat bii nii. suñ BRT boobu combien de milliards lañ si def booy saccagé nañ ko ak yeneen ak yeneen donc consulat bu ndaw bi duñ fa duggee def fa loolu tamit warul tax ñu tëj ko xaal lu ñu tëjee suñ consulat bi même Sénégal tamit dañoo war a tëj lépp lépp luy bureau administratif kay war ko fa lijjanti parce que même sénégalais yi ñoo fa nekk muy Sénégal muy Amérique donc duñu arrêté fii nii bépp ambassade tamit bu war a nekk dañ ko war a arrêté loolu du problème ba ñuy euh, bi lépp bépp liggéey bu mu si mun a def ba mun kaa def ban mu gën gaawee def naa moom mooy arranger sénégalais yi nekk fii te mooy doon li gën si ñoom quoi. ci ban camp féetee